Seydi El Hadji nee na tanabbaw anna nuur al-xatmi laylakum qad halla fi xiimatin min athari bari na ku kilifa wala kenn bu ma ko indilee maanaam ma ñëw ñu toog nga waxtaan parce ku simple la woon ci dundam mosul añ moom kese mësul reer moom du lekk moom kese dañ ko dañ c'est-à-dire que loolu ñëpp xam nañ ko buy lekk ñëpp dañuy toog la table de Serigne bu ñëpp xam nañ ko alors euh, moom euh, nit ñi bari xamuñ ko su ma fi indiwaan nit bari na ku bu ñu génnee kenn ku ma naan waaye sa bopp nii la mel ma ne ah ci lan nga ni ma ah. mais l'image qu'on véhicule ak li ñuy wax ci Messi il est différent ma ne mais il a toujours été comme ça c'est que ma ne ko c'est les médias baal leen ma et puis y a un moment y avait une certaine presse qui était contre lui et ça nous xam nañ ci lu bari et qui euh, véhiculait une mauvaise image de lui mais boobu ñun xale lañu bi ñu màggee y a beaucoup de choses qui ont changé euh, ma ne leen man sëñ le sëñ Abdou que j'ai connu quand je suis c'est le même hein il n'a pas changé musul yu dund musul ci changé dara ba ma ko xamee ba léegi nii lay dundee au service du Sénégal au service de la Hadara au service de son père de ses grands-pères et au service de la Oumma ndeysaan dafa am benn ku mu daan àndal ku ñuy wax Adama Fall yal na ko yàlla yërëm c'était son pratiquement son secrétaire daf ma mës a wax balaa muy gaañu il y a deux ans deux ans ou un an ma dama dence tous les billets d'avion yi ma ànd ak sa papa où il défendait le Sénégal dans des colloques internationaux fu muy défendre les tarixa où il défendait le Sénégal mu ne man dama ko daf ko répertion dama bëgg génne benn livre ci moom pour sénégalais xam ak qui ils affaire man ko Adama jaru ko man ko ndax yàlla rek moom xam nga moom yàlla rek koo tax muy def soxlawul ku xam soxlawul ku xamul gis nga temps yi politique bi jaxee Sénégal te lu nañu yàqu ko ko dama mës a ñëw di wax ak moom ma ne papa man de nit ñi wax ko d' accord ma ci lii nga def d' accord parce que moom mayoon nañu loolu ci moom boo argumenté ak moom daf lay déglu ma ne ko d' ma ci li nga wax ni li nga def ni lii wax ko teral ma ne ko tey y a des sénégalais qui demandent des ci kër gi lan mooy sa position par rapport au pouvoir mu ne tekk ba yàgg mu ne ma nit ñi li ñu bëgg duma ko def taalibe keneen laa ci yemal ma ne ko lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy ñu bàyyi réew mi ak politiciens yi ñu jaxat jaxatee ko yàq ko te ku ci ne ci ñoom yaa nga kër France Amérique mbaa Canada te bu réew mi yàqoo ñoom ñu jël seeni doom ak seen ñaari kuti ak seeni euh, jànq ak seeni booy dem bàyyi fi nit ñi mu ne duma ko nangu ilaa yow mi diin politicien bu ñëw ma wax ak yow président bu ñëw dinaa wax ak yow parce que mooy suma rôle aw ma ku ma ci àndal waaye dinaa ko rafetal ndax ñun Sénégal bu desoon ni xeer kese ñu baxal ko toog fekk nit ñi naan ko mu ne ndax ñun li ñu am Sénégal amuñu ko fenn te mënuñoo dajjati Alaaji Malick yóbbu mënuñoo dajjati sëñ Babacar yóbbu kon nag du ma bàyyeeg politiciens réew mi moo xam Ablaye Wade la moo xam Idrissa Seck la moo xam du ma ko bàyyeeg ñoom ñu saax-saaxee ko parce que li ñu bëgg mooy jël sëriñ si teg leen fële jël réew mi yàq ko ba mu yàqu bu yàqoo ñu ne mott wàccuñu fi te ñun bu fi xeer kese desoon ñu naan ko te ñoom duñ ko naan ñun ma ne mu ne bu fi xeer kese desoon ñu baxal ko naan toog feek nit ñi di xaar yàlla kon kooku nit ñu bari xamuñu ko woon xamuñu woon engagement am ci ci lu bari mës na ma fekk New York ñu yóbbu ko Rockefeller Center mu taxaw di xool étage di def nii di def nii bés yàgg mu ree man Pape ree mu ree ma ay sama Sénégal gi kañ lay mel nii waxul Tivaouane de waxul fenn dafa ni Sénégal kañ lay mel nii pour te dire moom patriotisme am fu mu yegoon dama doon wax tout le temps le premier patriote de ce pays c'est ce monsieur malheureusement les gens ne le savent pas c'est un patriote c'est quelqu'un bu nit ñi xamul woon cëru yàlla moom kenn waxu ko ñun duñ ci sori xam nañ ci lu bari xamuñu ko woon ci le sens du pardon c'est quelqu'un boo xamee ni mu mu mën a baale man de xaw ma lu ko yàlla xolam bi bindee man fekk naa ko temps yële passé néegam ñu paas ko nit téléphone te kooku amul lu mu ko saagawul ci Sénégal muy wax ak moom di ko wax nga dëgg kay man yaa ko moom yaa moom wax dëgg yàlla yaa ko moom ah lii yaa moom muy wax ma ko mu pare ma ne ko ma waaw man moom mu ree daal na ma sa baay mu niiru saar nee na ma ne ko mu ne ma yey sa noon moo gën rey sa noon ma ne ko ah, ma waaw yey sa noon moo gën rey sa noon boo boo ko yey reyee yeyee ba mu xam ni yeyee nga ko mu ne nga defal ko teraanga mu ne ma loolu rek am solo donc moom ci yooyu nit ñu xamuñu woon sensu générosité am nag duma ko wax moom parce que euh, nous il nous a toujours privés les autres <laughs> il nous a toujours privés les autres mais rëccu wuñ ko aussi euh, il a il a privé toute sa famille moom sax daf ko daan wax topp naa nit ñi ba defaluma sama njaboot lu ma leen war a defal waaye mu jox ñu lu gën a précieux mooy yar bi mu ñu yar ak valeur yi mu ñu yar loolu moo gën a am importance